mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatullah ñoo ngi nuyu mbokk Sénégal yëpp ngi nekk ci biir réew mi ak ñu nekk ci bitim réew di waa jaspora di nuyu nag waa département bu Géejawaay bi nga xam ne ñooñu tànn jaare ko ci coalition wala intercoalition Yewwi ak Wallu def ñu seen tête muy góor muy tam jigéen di mag di ndaw ñu ngi nuyu ñëpp di baalu ñëpp àq tey baal ñëpp àq di sàkku ci ñëpp ñaan te di leen ñaanal suñu mbokk chrétiens yi tamit di waa jàngu bi église bi ñu sant leen gërëm leen bu baax a baax ñu nekkil suñuy dëkkandoo fii ci département tey nag nekk bis boo xam ne bis bu rëy la ñuy ubbi campagne électorale fas yéenee tànn ca ci ndawi réew ma député di assemblée nationale bii nag di tombe fukk ak ñeenteelu législature bi ba tax na lancement wu campagne boobu askanu géejawaay ñu am ci ñoom mbégte waaye it sant leen gërëm leen ci kóolute gi wi nga xam ne yëkkati nañ ko daal di ñu koy jaglelee suñu jëmm yu xeebu yi def ñu premier magistrat maanaam maire de la ville bu géejawaay ñu sant leen ci gërëm leen ci sàkkuwaat ci ñoom it daggaanwaat seenu baat di seenu kàddu ngir ñu woteel ñu ci lu jëm ci wàllum élection député bii nga xam ne moom la ñu jëm ñu bëgg nag ca assemblée nationale ñun l'intercoalition Yewwi Wallu rupture indi ay député yoo xam ni du ñu nekk député wu benn nit wala député wu ab coalition waaye danoo nekk député du peuple député wu département bu Guédiawaye géejawaay am ñu leen teewal ca penku ndawi réew géejawaay am fa ay doom yoo xam ne bu ñu waxee ñépp xam ne ñii géejawaay rek leen tax a waaye géejawaay am fa ay doom yoo xam ni bu ñu yëkkatee kàddu ñu xam ni géejawaay nag neexul ba neexul waaye ay jàmbaar fa dëkk ay bañkat ay nit ñu ñu yar ci siraatal mustaxim ay nit ñu am fulla ak fayda waaye ay nit ñoo xam ni it njariñu réew mi donc moo leen tax a jóg ñu bëgg ci assemblée national it ay député yu bees yu wuuteeg yi fi jot jaar rawatina ci bii nga xam ne moom la ñu génn ak njabootu président Macky Sall gi assemblée nationale bu ñu gis ay député yuy defar ay xaalis yu bon assemblée nationale wu ñu gis ay député yuy jaay ay passeport diplomatique assemblée nationale yu ñu gis ay député yu am fukki atu yàlla mosuñoo def proposition commission d'enquête parlementaire na leen rey assemblée nationale boo xam ni mbóot ma nekkoon ci député di sirru tubaab bi naan ko le mit boo gisaan député wala ministre am mbégte xam ne ab kilifaa nga ne xam ne kuñ tànn ci ñiñ tànn nga ne loolu yëpp léegi amatul waaye buñ ne député ñu ne tàccoo leen fa yóbbu buñ ne député ñu ne seetaan télé buñ ne député ñu ne xeex buñ ne député ay jëf yu bon yu ñaaw ñu bëgg nag wax ak waa Géejawaay ñu xool bu baax ñu ñuy tànn ci fukk ak ñeenteelu législature bii ñu leen di nag dàggaan tàllal leen suñuy loxo ngir ñu tànn député yi nga xam ni ñoom la intercoalition wu yeewi askan wi ak wàllu Sénégal indi proposé leen ko te man mii di El Hadji ay dara ma jiite leen ñu leen di ñaan nag ñu voteel ñu ñu dem ñi nit ca assemblée nationale nekk ay député wu askan wi député du peuple nekk député wu géejawaay te ñun nag yàlla sax dogal na alhamdulilahi rabil alamin ci lii la ñu mës a ne ci lii lañu ñu géejawaay mës xame ci suñu métier bi nga xam ni moom la ñu nekkoon nekk ay taskatu xabaar daan défendre géejawaay défendre quatorze régions yi défendre intérêt wu Sénégal jël nag mbirum teraanga àdduna ay neex neexu nguur ak yépp mu jaral ñu ñu teg ko fële di kaasal askan wi suba ak ngoon guddeeg bëccëg ba li ñu dal yépp te la ñu dale ñàkk ci suñu liggéey fanaan loo ñu ñetti guddi ci commissariat waaye tëj ñu fukki fan ci biir kaso Sénégal jaral nañu lu ni raw maanaam dee loolu lañ bëgg mu continuer ñu bëgg nag Sénégal bu bees bëgg nag yorin gu bees rupture am loolu moom moo tax ñu ñëw tàllal suñu loxo waa géejawaay nañ ñu ko defalee woon ci élection locale yi ñuy sàkkuwaat ñu defaralaat ñu ko noonu ci élection député yi ñu am ca ndam waaye coalition yeewi ak wallu am majorité ca assemblée nationale mën a indi rupture waaye mën na tamit indi yu bees xoolaat suñ contrat yi ci pétrole bi ak gaz bi xoolaat ay contrat ci ressource naturelle dëkk bi yépp waaye jubbantiwaat wàññi ministres yi indi rupture li sénégalais amoon yaakaar ba teg fi ñii te ñu football ko teg ko nële yoroon gu bees daal di dëkk di bonne gouvernance te Macky Sall ak waa këram defuñ ci dara lu dul tas yaakaaru askan wi te seen bëgg-bëgg yëpp du dara lu dul ñoom ñu am majorité ba indi troisième candidature Macky ñun nag loolu lañ ne du fi am te képp koo xam ne bañ nga Macky Sall def troisième mandat doo votel Benno Bokk Yaakaar waaye di nga votel coalition bii di yeewi ak wàllu ñoom Benno Bokk Yaakaar de dañ leen a indil loi ne ku fi def wàllub ngóor jigéen na yat wi dal muy suñ mbokk kerce yi muy mbokk jullit yi amu ci kenn ku daganal jëf jooju ñoom ñu ne duñ ko voté kon votel leen mooy votel góor jigéen yi loolu nag na ci sénégalais yi bàyyi xel bu baax a baax a baax a baax ñu sant nag kilifa diine yi kilifa aada yi kilifa politique yi nga xam ne ñu ngi jubal loolu daal moo nekkoon tey première déclaration tête de liste bu intercoalition Yewwi Askan Wi nekki maire de la ville bu Géejawaay nekki doomu Géejawaay doomu dëkk bi ñu gërëm ñëpp sant ñëpp. di leen wax rendez-vous bi daal le 31 juillet la ngeen jàppale ñu voteel ñu. jàppale seen bopp voteel député yi nga xam ne moo gën ci yéen muy wallu ak yeewi di leen xamal ne nag campagne bi léegi door na dinañ dugg ci biir kër yi waxtaan ak yéen joxanteeg yéen loxo jox leen tamit suñuy proposition bu yàlla dogalee ñu nekk député li ñu yéene waa Sénégal gi yëpp rawatina nag waa Géejawaay kon nag ñu sant waa Géejawaay gërëm leen muy góor muy jigéen muy mag muy ndaw wasalaam